accord euh, mu mel ni Gabrielle Kane euh, gis nañ même avant ngay voyagé da ngaa sax bàyyi fi coow lu bari ñu naan accident bi dëgg la am du dëgg. Ah, euh, dëgg la woon accident bi choc bi. mais dëgg la kay mais bon. pourquoi les gens l'ont démenti Mollah Morgun nee na accident bi. yow Mollah Mollah day référence. Moulaa day référence yow. Mhm. bàyyil ma Moulaa waay. Ah. léegi 49 vues lay am gisoon nañ nga def <laughs> gisoon nañ nga def appel ak moom euh, moment bi nga voyagé ngeen def. conversation non boobu maa ngi woon fii. Ah. non boobu j'étais là boobu maa ngi référence léegi 49 vues lay am. <laughs> yaay dugg ci Moulaa waay waay waay Moulaa de référence bàyyil ma Moulaa donc kon li mu démentiroon texte naa bi du dëgg. du dëgg. Mhm. xanaa bëgg ma woo mécanicien. si c'était un peu grave mais légèrement j'ai quelque quelque peu man maa doon dawal mm-hmm. mais bon y a pas pas mortel mm-hmm. dama dem pare après ci guddi gi ma voyagé donc ça c'est normal mm-hmm. loolu moo taxoon ma dem France yàgg fa tamit comme moom nee woon na mënumaa dugg France dama mandat d'arrêt dama sàcc xaalisam dama dem États-Unis jóge fa dem France man sum France moom wax dëgg yàlla fa bokk tamit nañu bàyyi di ma kii quoi di ma sosal quoi dëgg yàlla ce maître El Hadj Diouf wax nga Adji Sarr wax ni man xam naa maître El xam na mais maître El Hadj Diouf ñaata guddi non maître El Hadj Diouf ñaata yoon non maître El Hadj Diouf man ak moom ñaata yoon guddi mhm. la jóge këram bàyyi këram mhm. maître El Hadj Diouf ñaata yoon guddi mhm. la Adji Sarr nekk dans un moment de détresse mu bàyyi këram guddi ñëw assister ko man ma bàyyi këram sama kër guddi ñëw assister ko kon coow li ñuy wax seen diggante amul déggoo man bi ma nekkee France feebar bi ma nekkee France feebar kenn kenn rek de moo ma woo France. Mm-hmm. di ma nemmeeku ci sama maladie. maa ngi Paris. moo ngi Strasbourg defe naa. Mm-hmm. moom la. muy maître El Hadj Diouf muy maître El Hadj Diouf. donc non maître El Hadj Diouf man sama gaañ la. donc na nit ñi di maandu ci lu bari. Mm-hmm. donc le combat que vous menez yéen a ngi continuer di ko a des combats communs on a un combat en commun c' est te ñaata yoon man ak moom ba ma génnee ne Adji Sarr a des problèmes mm -hmm. et qu'elle doit être assistée psychologiquement. Mm -hmm. Aucun de ses avocats n'est sorti me démentir. lu tax. Mm-hmm. maître El keneen ak keneen démentirul. waaw lu tax. Mm-hmm. parce que ñoom la ñu dund ak xale bi psychologiquement. Mm-hmm. dund kook man. ñoom xam nañ ko ba génn ñu waxuñu parce que xam nañ ne li may wax dëgg la. donc saytaane yi nga xam ne mosuñoo gis Adji Sarr téléphone rek lañ koy dégg lañ lañ ci xam. il faut arrêter. d'accord alors euh, Gabi ma dernière question mooy euh, dañuy ñëw nag wax sa diggante ak sa famille euh, parce que les gens disent que ni euh, ci li nga xam ne moom mooy enquête yi nga def nit yu sensible nga ku mën a jàppale nit nga ku mën a jël coono nit ak problème mu nit en tant que femme rawatina jigéen ñi. Mm-hmm. l'histoire douloureuse avec ta sœur décédée. est-ce que dafa indi benn benn benn rancune ci yow. da fi ma ko xamee moom fi ma ko jëlee doo ko xam. mais les gens ont témoigné que nit ku social nga non seulement. Mhm. mais nit ku am sensibilité nga par rapport ak ci problème mu jàmbur. c'est vrai. Mhm. loolu dëgg la. Mhm. mais àdduna moo moo demee noonu. il faut nga dund yenn jaar-jaar yi nga am foo jaar. et nga gis ñu la dimbali am ñoo dimbali man bu ma demee ba toll fii tey dafa am ñu ma jàppale. bi ma demee France j'étais pas française. dama dem man kese benn xale bu jigéen sénégalaise di daan sama doole di jàngi. benn ma xamul moo jógee ñëw uuf ma mhm. jox ma liggéey fayal ma sama jàng mhm. xeexal ma ba ma am nationalité mhm. xeexal ma ba may jënd sama premier kër France ma dem banque bi na ma il faut nga indi apport apport bi moom moo ko génnee ci compte bancaire am jox ma kooku tey gaañu na mais moom ku nit ku weex tàll la xamul xamul xamuma xaw ma ko dafa ma gis ci ay jafe-jafe mu génne ma ci. jàppale la uuf ma jàppale ma la situation xam nga donc euh, boo nekk demee bitim réew nga galéré. Mhm. sonn euh, gis ay jàmbur yoo xamul. Mhm. ñu jàppale la boo ñibbisee sa réew boo gisee ay nit di sonn da nga leen di jàppale parce que ba nga ciy toll di sonn. Mhm. ay nit ñoo la jàppale te man ay tubaab ñoo ma jàppale. donc c'est normal. nga jàppale nañ euh, l'histoire douloureuse avec ta sœur décédée nan nga koy dundee actuellement émotionnellement. laquelle. avec ta sœur décédée bi nga doon raconté euh, fële ca CNM euh, ki nga xam ni dafa décédé ci négligence euh, wala sax nag dañu jàpp ni non assistance à la à une personne à danger nan nga koy dundee actuellement surtout sa biir famille non mais man sama famille sama yaay la sama frère samay sœur donc j'ai mhm. pas une famille XXL en tout cas ñi ma considéré am na ay cousin am na mhm. ay famille élargie mhm. mais dans ma famille on est la douleur est toujours là mais on est passé à autre chose dafa ça m'a nga grandir. Ouais. je n'ai pas le choix d'ailleurs. Mm -hmm. d'accord auparavant euh, Gabrielle Kane nekkoon France nekk une, une fille simple je dirais euh, mais actuellement nga dugg si benn combat nan la ko maman di dundee. fois il a peur que des fois euh, xelam dina dal ci yow ci sa sécurité sa jàmm. nan la koy dundee et parle-nous un peu sama yaay bu ñëwee sama yaay dafa kii de. Mhm. parce que xam nga sama yaay xam na ma. Mhm. sama yaay boo ko yewoon xaaju guddi ne ko Gabrielle rey na nit danaan la moo ma. Mhm. ndax xam na sama fit fu mu toll. boo ko yeewoon nag Gabriel rey na nit. na la moom la mais am na yoo xam ne boo ñëwee ne ko Gabriel moo ko def na xam ne du man ndax xam na ma. Mm-hmm. Euh, parce que tukki naa France def 11 euh, ans. Mm-hmm. man je suis fii de la nuit. Mm-hmm. j'aime pas traîner fu ma amul soxla du fa dem. yitte moo may yëkkati. dëkk bi ñu bari dañuy wax Gabriel nee na Gabriel nee na ak a yomb waaye gis naa Gabriel fenn ak raar. c'est très nga gis ma may dox. bëriwu moon ñu bëri ñu may jëflanteel parce que j'ai un cercle très fermé te fort heureusement comme ñi nga gis fii ay góor rek ñoo ma wër ay jigéen waruñu ma mhm. donc man sama yaay plus pour man maa ëpp inquiétude ci ñoom mais defe naa ne euh, tey moom léeg mu taxaw ne ma moytul moytul mhm. mais sama yaay Adji Sarr nekk na ci détresse benn guddi sama yaay moo ko fat hmm? sama yaay recueillir na Adji Sarr këram mhm. daf ko adopté donc nit ñi nañuy màndu ci relation nit ñi mhm. nañuy màndu ci lu ñu xamul bari nañuy wax te xamuñu mhm. donc sama yaay bu amoon un instant manque de ñàkk wóor mu wóor na ko ne li may def nii dama ci dama dama dama ko yërëm moo tax moo tax moom ci boppam elle a eu à jël Adji Sarr uuf ko ni doomam te keneen ku mu nekkoon ci réew mi danaan Adji Sarr danger ko uuf donc je pense que sama sama sama famille en fait cette fibre d'aider des gens. on l'a dans la famille. d'accord kon da nga ko def la ko héritel. bien sûr suñu suñu famille ñun on est comme ça on n'a mhm. pas de problème muy sama mhm. sœur muy sama yaay. Mhm. on on a on l'a accompagné ñoom dugg nañ ci affaire bi jàppale ko. parce que man maa ci dugg. Mhm. te buñ ci duggee jàppale ko ndax man xam nañ ne conviction moo tax ma dugg ci. Mhm. ñoom xam nañ sama niveau de conviction. Mhm. donc sama yaay moom je pense que amul lenn lu ci ragal sama maam bu jigéen. sama maam bu moo xaw a wax 8 euh, mars sargal sama maam bu jigéen temps yi moom moo may xaw kii sonal tuuti parce que man je suis très liée ak ma grand-mère maternelle. Euh, daf may woo moom mosu coow li bi ma amee tey mosumaa woo. mais samay samay tante sama rakku yaay euh, bi nga xam ne man moo ma xaw a yar tuuti mhm. ak sama maam léeg-léeg ñu woo ma dama coow li bari na coow li mhm. bari na mhm. sa tur bi sa tur bi weñ sax léeg-léeg buñ koy tudd mu xaw am na mu mel moytul wax ji moytul wax ji moo tax léegi je fais un peu plus attention mais man familialement ay jigéen rek ñoo fi des mais bu weesoo loolu euh, góor ñi ñoo fi nekk donc 8 mars euh, jigéen ñëpp la parce que sama sama maam bu jigéen wax dëgg yàlla sama xarit la mm-hmm. euh, sama yaay tamit euh, léeg ñu ñu xuloo bu baax a baax mm-hmm. baax sax mm-hmm. mu ne ma sarab yi ñoo dikk sarab yi ñoo dikk bàyyi ba sarab yi ñëwaat mais je pense que ma mère a été très courageuse dans sa vie je suis pas sûre que j'aurais été capable am courage bi mu am ak fi mu jaar donc peut-être aussi que wax ne il faut que les gens puissent euh, être courageux dañuy wax je suis courageuse mais je pense que ma mère a été courageuse. Mm-hmm. donc il faut que ñu continuer. moo nga koy tàggatoo maman mu ngi lay na fexe gaaw dem màkk rek. dafay <laughs> dem libéré libéré nii mu dem màkk. mu dem màkk rek mu dem màkk rek. waaye sama yaay de boo ko waxee mu ne la jox ma xaalis bi daa bëgg xaalis. <laughs> sama yaay boo ko doon yóbbu màkk danaa ma jox ma xaalis bi. maa ngi moom a yem dañoo bëgg mm. xaalis waaye. garaawul ma très proche de sa Euh, j'ai été plus proche de mon père mais euh, mhm. sama doom moo gën a jege sama yaay que man. bon c'est inversé mais sama yaay mi ngi fi. Mhm. sant yàlla voilà loolu moo xaw a inversé. Mhm. mais sant yàlla bi ñu dundee ba tey mu nekk fi. yàlla may ñu aussi comme sama papa dundul. yenn bi ñu am aussi ñu ñu yeggale ko ba nga xam ne ñoom. dinañ am fierté ci ñun. parce que nit ku nekk li ngay. Euh, li ngay ñaan mooy sa yaay taxaw gërëm la. Mhm. donc loolu mooy àdduna c'est important mu nekk euh, yeneen facettes yu ñu gis ci Gabrielle Kane ndax hormis euh, de mener des combats pour les femmes hormis de faire toutes ces activités elle mm. tout sénégalais yëpp ñu lay sargal. Gabrielle benn doom rek laa am de. bul ah. tax gars yi foog damaa yor. continent njaboot la famille sénégalaise mooy. njaboot gi kay mooy ñii classe gi tot topp ma. tata tata tata bëgg laa lambaloo te doo anytime xanaa. su ma anytime nag gars yi ñoo ñëw de. góor ñi ñëw anytime ñu ngi koy moom ah moom dugg dëkk bi di rabajo. Mm. foog ma anytime. anytime bu spécial ay góor rek ay ñëw. ndax dëgg mm-hmm. yàlla. Mm-hmm. man samay càmmiñ ñoo fi ne yow grand mën nga xoole de doo dem rek yow. <laughs> lii nga xoole trop. lii laay ah, xool mel ni ku ñuy scruté <laughs> lan la ah addunaay addunaay xel jamono yu bët bu booy xool ah, xool ndànk dañ la bëgg nag eh, taxawal ne ko mu taxaw na ndax ñu maye la yaa ngi wax en état am taxaw sa daa ñuul ñaaw mel ni Babacar Touré mu mel ni kuskondorong gàtt ba pare fu mu toll na ngaang ma wadd tey Babacar Touré la amee waaye dañ dañ ma envoyé benn vidéo may tooñ ma ne sama xel nit ñi foog na ma koy tontu nit ñi foog na ma koy tontu ma ne du ma ko tontu dafa ñuul ñaaw mel ni kuskondorong te wër na ma woon ne yorul <laughs> mhm. bu yoroon du toog ci kii naan dafa leen dama leen di wax dama leen di kii di jaay garaaw te jàngul xeer léegi nag dëgg yàlla moom baal naa ko dama bàyyi baal naa ko si xol seen guy euh, ci barke 8 mars bi daal baal naa Babacar Touré non xoolal euh, man j'ai pas j'ai pas grand chose à changer mhm. à changer mais bàyyi nga defante bi ay defante yooyu bàyyi nga ko non tey laa gën a mën a defante mais dama koy def bu civilisé bi bu njëkk ba dama xuloo xeex mm, xam nga non dama non c'est pas que soppeeku naa dama dama dama changer mhm. méthode parce que wax dëgg yàlla mhm. euh, dama dem ci réew mi nekk fi kilifa léegi kilifa laa mhm. xale yi maay seen kilifa bu buñ ma gisee may ne naa ma tata li nga def ne nan la xam nga te damaa dem wax dëgg yàlla sëñ Mountakha ma soxna Gabriel sant naa la gërëm naa la loolu dafa nekk si affaire yu ma gën a fier sama àdduna sëñ Mountakha dama soxna Gabriel sant naa la gërëm naa la loolu lu ma lu gën a neex sedd sama xol loolu la mm-hmm, man mu man mu rëy rëy làmmiñ bi ma dem xool ko mënatuma wax ma mm-hmm. préparé sama discours ma dem ne jàkk sëñ bi mënatuma wax sama làmmiñ bi réer ma mm-hmm. mënuma wax maa ngi dem ci sama sëriñ dañuy dem màggal 8 mars bi daaru la ñu dem ndax sama sëriñ bi wax macha allah Mbacke maa ngi sa ginnaaw man si ci sama sëriñ laa topp di la gërëm di la sant naaj bi tàng na ñoo ngi fii di liggéey mhm. eh, di wax ne xëy na nag suñu partenaires yi dana ñëw ñëw leen tataaka bi sonn na maa ngi woo sama xarit yi DG Laat Diop ah ñeneen ñi maa ngi leen di woo de maa ngi ñëw tataaga bi Mambo Diaw maa ngi koy woo mhm. Mambo Diaw problème am mooy doo ko woo ba jot ko mhm. comme léegi toog na CDC naa dem fekk foofu na ñëw si suñu xale góor yi sonn nañu liggéey nañu engagé wu nañu ci 8 mars bi c'est tellement beau de voir des hommes nekk sama ginnaaw di jàppale pour mm-hmm. projet boo xam ne jigéen la donc comme jigéen ñi ñëwuñu ñenn ñi dañuy siisu mm-hmm. parce que dañ maa fan te mm-hmm. ñemewuñu ko nangu nañu ñëw jàpp ci ci événement yi xam nga xam nga non dañ maa fan sincèrement ah, xam nga nag réew mi maay seen xalif général ah, munuñ ci dara yàllaa ko def munuñ ci dara da leen a métti nag waaye yàllaa ko def nañ ko nangu dégg nga maa ngi lay sant la gërëm sant salaam. sama xarit bi. Ah, di sant Diallo. Mhm. Diallo yéen Seneweb samay xarit ngeen. Mhm. ndax yéen nee jël temps di ma déglu classé woo leen ma. maa ngi sant di gërëm si 8 mars bi sama tata Aïssata Tall Sall. ndeysaan ndax man ministre ministre jigéen ci biir réew mi. Mhm. mooy seen chef. maire bi civilisé na. maire bi tey na. maire mhm. bi na maire bi man dama koo bëgg. dama kaa fan tata Aïssata Tall Sall. Mhm. dinaa la seet si 8 mars bi. dinaa la sagal parce que des femmes comme Aïssata Tall Sall on en a besoin. Mhm. des exemples comme elle. on en a besoin. il faut que ñu dem di ko seet ak sama copine sama doomu ndey kooku maa bëgg sama bopp. Mame Ndiaye Savon. dama ko woo man Sénégal nit amul ma woo la nel dama laa fan. ba mu des Mame Ndiaye Savon. Mame jaay Savon laa fan ñoom ñëpp a ma fan salaam <laughs> maaleykum salaam Sidi Kaay Mame Ndiaye Savon yow yow yaay jaay ñoom ñoo jaayul waaye man maay liggéey ñoom ñoo liggéeyul man maay féministe bi ñoom ñoo nekkul féministe yi